tey tey mu daal di dem Serigne a Mbacké daal di eh, jël Serigne Youssou mi nga xam ne moo toppoon ci ginnaaw sëñ Ato daal di koy toftal ngir mu nekk ci bopp njaboot gi wéyal liggéey bi yéen kàddu nga yëkkati eh, isbu taraxe yaa ngi doog a taxaw yëfi njëmbatal sëñ Bamba jëlul def ndox dana jebbi hmm. ànd ak Serigne Touba toppum siti la te sax yàlla yi yoon waa ngi doog a taxaw is boo ngi doog a taxaw bu yàlla na fi yàlla bàyyi Yuusu dana liggéeyal Sëriñ Tuubaa loolu la ko aatu yéene woon moo tax aatu taxoon ko ci kanamam day dem rek sëñ bi amul tànk ginnaaw eh, is boo ngi doog a taxaw waaw jërëjëf dina baax moom kay ni rek dara du soppiku lépp ci dal ak lu mu wax ñu jëfe ko ci dal ak sago nit bu jëlee dara ni sama dund gépp laa koy def foofu mu defee ko sago bu fekkee danaan nag bisub tey rek la koy def bu ko neexee mu xaatar xaatali mel ni bisub tey la koy def lii suñ dund gépp sëñ lañ nar a nekkal te hmm. amul guddi amul bëccëg amul suba amul ngoon yàlla nga fi yàgg te ñëpp tàll seen mel ni man ñëpp koy wax mooy fas nañu yéene ñu gën a gore